trop c' est trop mbir mi dafa ëpp audit yi d' accord nañ bu ñu sa jógee ñu audité samay doom samay doom ñaari doom yi nga xam ne liggéey nañu gouvernement procédure la respecté daf na song ma dóor ay coup de sommation TFM mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi am mbégte bu yaatu euh, dikk ak yéen ci seen émission faram fàcce ni ñu koy defee nag mbokk yi àllarba bu jot waxtu bi ñu dikk ak yéen ci émission boo xam ni waxtaanee tolluwaayu réew mi nga xam ni moom moo ko sabab ñu koy def àllarba bu jot ci waxtu bi di ci ànd ak yéen euh, ci seetu Sénégal muy euh, télévision Futur Média gannaaw bi ñu leen nuyoon nag mbokk yi tey ñu am gan gu ñuy dalal maître Moustapha Diouf lay wuyoo ñu gën ko xam ci maître El Hadj Euh, mu nekk euh, avocat à la cour nekkoon ministre de la république nekkoon député à l'assemblée nationale euh, moom la ñuy recevoir mbokk yi tey ci seen émission Faram Facce ak télévision Futurs média jiite itam parti bi nga xam ni mooy PTP muy parti des travailleurs et du peuple moom la ñuy recevoir mbokk yi tey ci seen émission Faram ak télévision Futurs média maître ñu ngi lay nuyu Diouf. Pape Ndiaye lay fay am mbégte mu rëy. ñëw fii sa émission bi nga xam ni du ma ni guléet mhm, tout à fait euh, di am mbégte toujours di daje yow ndax dafa yàgg mhm, depuis rajo Oxygène Pikine ba léegi effectivement defe naa ne mhm. jaar wal fajri lu yàgg rek dëgg la ba wal fajri tout à fait donc mbégte la am daal dajeeg sama rakk waaw ñu waxtaane ci réew mi dëgg la parce que réew mi moo ko jar Sénégal suma parti dafa nekk parti boo xam ni man damay am problème parce que chaque fois sax suñu militant bëgg a dem wax ñu non na leader bi ñëw parce que moo gën a mën a leeral parce que moo dàq wax kaar macha allah. di mm-hmm. Sénégal yi dañu bëgg may wax. di wax di wax ci réew mi ndax loolu tax suñu parti guddu mm-hmm. mooy parti des travailleurs et du peuple. donc képp kuy liggéeykat ak kuy askan suñu parti dafa war a taxawu moo tax lépp lu xew ci réew mi ñu wax ci suñu kàddu joxe suñu position. suñu jamono bii nga xamee ni am na ñoo xam ni dañu lëndëmal xel yi. man fu ñu ko jéemee ma le rek ma leeral ko incha allah rabbi maître vraiment man partie bi dama ciy désolé tout le temps boo koy wax mm. nga baal ma nag wax dëgg yàlla mm. mais partie bi à chaque fois que boo koy boo koy wax dafay dama ci am <laughs> dama ci am xaw am kersa mm-hmm. parce que partie boo xam ni vraiment amul benn amul benn rendez-vous électoral boo mm. xam ni def na ci succès man du ko mën a comprendre parti boo xam ni amul benn animation parti boo xam ni leader bi daanaka ni nga ko waxee moom rek la ñuy dégg maître El Hadj Diouf xam nga parti boobu dafay mel ni da nga koy mbubboo rek pour mën a bokk ci affaire yi mais xam nga ni parti bi aussi vraiment li mu signifié li mu tekki bariwul bëggoon naa vraiment nga nga nga gën ma wax leneen ci parti bi lu dul euh, ñoo fi taxawal xe liggéeykat yi ñoo fi taxawal nangam nangam xam nga d'accord yow sax parce bi dafa am retard ci fonctionnement am. ndax c'est le jeu des alliances. Benno Bokk Yaakaar depuis 2012 avant 2006 2007 j'étais dans le gouvernement de Ablaye Wade xam nga après je suis l'Assemblée nationale mais 2012 parti bi boo demal boppam assemblée ba ñu di ñoo saboté naan plus forest donc rendez-vous électoral boobu dañ ko assuré parce que bi ñu gagné ak Ablaye Wade ba xam nga 2012 ak léegi. maître maa ngi ñëw fukki at yàlla la. maa ngi ñëw fukki ati yàlla la. su ma xarit Macky Sall nekk au pouvoir ma ma ma ma def ñu def stand by di nekk mu jeexal bi xam nga man ma jël deux mille vingt quatre ndax comme je l'ai toujours di man candidat laa parce que gëwuma troisième mandat Macky Sall et je l'ai toujours dit te maa ngi Benno Bokk Yaakaar dama gëm ne léegi nag ñu ngi commencé def liggéeyu parti dëggantaan mooy dugg ci àll bi parce que ñun. dañ dugg ci àll bi en 2012 moment bu difficile ne ma lu tax bokk Macky Sall avant bokk Moustapha Niasse Benno Siggil Sénégal ñu dem premier tour jël troisième second tour ñu ànd ak Macky Sall de créer Benno Bokk Yaakaar ak feu Amath Dansokho feu Tanor Dieng ah ak Macky Sall Macky Macky UDI for président ah ñoo ñëw ñu ànd créer Benno Bokk Yaakaar gañe ak cinq pour cent ñu teg ci 3 mois 4 mois ñoo dañuy dem élection député ma ne attention man député kenn du ma ko may xam nga rendez-vous électoral la xam nga président bu gañee ba pare législative boo boo demee contre boo dalay rey moo tax gars yi Idriss Seck Moustapha Niass def ci Aladji Tanor Dieng. def na euh, am na mais miin naa ko vraiment. mais ma ñëw ma ñëw mais foofu xam nga li nga wax moom miin naa ko te ñi seetaan ma li ma tardé non mais ma Pape s'il vous plaît tuuti rek. non bi loolu amee. ma ne bon man damay demal soo bopp. ma dem am Ampli Forest. muy 2012. alors que président bu ñu soog a fal. après bu ñu demee législative lépp lay ramasse. mais man kenn dama dem Ampli Forest c'est important. 2017 ba demaat. rebelote aw ma dara ma takk soo bopp nag ndax amul benn bureau de boo xam ni amoon naa fa représentant lay ma lu tax 46 liste xaw ma 47 ay ma ne xaraa ñëw ñu xaju ci benn benn bureau de kon xëy na am na coalition yoo xam ne dana dana ñëw loolu moo ma taree ba loolu paree su ma xarit Macky Sall war a def second mandat vingt 2024 bëgguma koo gàllankoor parti bi di liggéey ci ndànk-ndànk. léegi nag 2024 mu ngi ñëw parti bi dafa nar a présenter maître El jouf donc ci àll bi ñuy dugg teen di nga gis cadre yi wax jeunes yi di wax communiqué bureau politique di wàcc ñu sentir vraiment le PTP en direction du palais de l'avenue Léopold Sédar Senghor parce que loolu amul séer amul caaxaan ndax gisuñu fi benn candidat boo xam ni jaar na fii le leader du PTP <laughs> ancien ministre waaw ancien député okay. avocat international chef de parti jusqu'à Ablaye Wade. d'accord mais maître est-ce que yaa ngi ciy. est-ce que yaa ngi sóoraale ci rendez électoral bi yaa ngi ciy sóoraale sa image est-ce que yaa ngi bàyyi xel sa image euh, yàqu-yàqu yu mu mën a am ba mën la yàqal leneen. est-ce que loolu yaa ngi koy sóoraale image ban image yu par exemple nit koo xam ni euh, buy wax la jàpp ni li muy wax euh, voilà dafa am fu mu féete wala ni muy waxee. am na nu ñu sam dem sax ba di di ko gisee neneen est-ce que yaa ngi sóoraale image boobu. du may waxee nan par exemple nan. ah non may waxee mooy lenn suma wax kuy wax dëgg moom da ngay déranger ñu bëri su wax du ñu neex ci ñu bëri parce que ma kenn loolu nekk nekk sama nit du ma la neexal deux lu ñëpp dara la wax te ñëpp bëgg koo dégg danaa ko wax. moo tax population yi ànd ak man. waaw mais pas ci ci lu xaw a jege ah, comédie. Ah, ah, pas ci lu xaw a jege comédie man du ma def comédie pas ci lu xaw a jege. luy reetaan loo wala luy. luy indi leneen. loolu pas ci luy jege. luy loo xam day friser vraiment comédie. loolu ko amul niveau moo koy wax. Mhm. parce que gis nga booy plaider. wala ngay wax pour mu dugg ni kii. kon partout da ngay plaider. déglu ma non dama lay wax rek. non mais damay laaj ndax partout yow foo toog da ngay plaider. politicien day pour pour ñu nangul li nga leen di wax mu dugg seen xol bi mais bu fekkee li ngay wax safu leen amul xorom saful dara ah nga ñëw rek mel ni robot mais El buy wax nit ñëpp la preuve tey boo tey nga ñëw xam la amuñ temps di xool comédie mais du ci lu positif aussi nit ñi dafa record dëgg-dëgg mais li nga ciy dégg li nga ciy gis li ci négatif mu ëpp wax dëgg ñooñu may saaga. waaw ñooñu xam nga ñoo seen chef le président des insulteurs publics ñoom loolu moo noonu la ñëwee politique avant ñoom kenn saaga kenn. temps Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall El Hadji Diouf Pam Ngeye Ndiaye ah nit ñu civilisé ñoo fi nekkoon mais léegi dañuy fay ay xale ñu nekk ci réseaux sociaux yi ak ay ñu nekk ay Canada ay États-Unis man mi nekk Sénégal ki lu ñaaw lu nañu di xëpp président de la République kon man. ñu mën a bàyyi nag bàyyiwuñ kenn. d'accord bàyyi sëñ Bassirou Gueye procureur bàyyiwuñ Antoine Diome bàyyiwuñ kenn. d'accord mais cest yi dire réewane gi nekk ci dëkk bi mais malgré tout. mais yow it bàyyiwoo leen. ah non man nag. ah mais yow itam bàyyiwoo leen. ci wax ju ñaaw. non man de wax ju si wax ñaaw mënuma ko. non xam nga bu loolu amuloon plainte du la ci fekk jóge ci Ousmane Sonko jëm ci yow. waaw man plainte naa ko. non non xam nga. man ban da ngay non xam nga moom wax na ko ñëpp dégg. moom ban wax ci ñaar xam nga da ngay wax na ko wax. non xam non wax na ko. naaf la ko wax non non soo demee bay bay dugg ci moom. Ah. ci mbiru sexualité am booy dem bay dugg ci moom ci mbiru ay ay rebelle la ay ci wàllu xeetam ak leneen. ku nekk rebelle dañu wax ko. waa ah, mais. ku nekk terroriste ñu wax ko ku wa ku ootee Mortal Kombat ñu wax ko ku taal sama kër terroriste nga ku taalu sama kër. ni mortal combat taal leen wàcc leen ci mbedd mi terroriste nga rebelle nga man am naa samay preuve maa ngi ko denc di ko nekk kon loolu jarul coow fii nag terroriser nit ñi ba genre yoo xëy na bokk ci xam bokk ci yenn journalistes yu ragal yi bu ñu nekkee émission dégg saaga yi commentaire yi dañuy ñuux seen geen du ñëwee tudd yii booyee bi dañ duñ la may jàmm yow xam nga damay bu dee damay fen ne ma met dangay fen bu dee boo mi du ñu saaga képp koo xam ne àndoon moom nee ma mais loolu moom sama grand nga mais waxoo dëgg ma naa la loolu billaahi may naa la ko bu fekkee ni am na benn groupe de presse boo xam ni ku fa nekk di journaliste wax loo xam da ngay attaqué Sonko wax ay bêtises am ay erreur am duñ la saaga rek nee ma nee ma El Hadj waxoo dëgg dañ lay saaga ba nga tooy même man gis naa sax ci ci yenn yenn yenn yenn kii organ de presse yi ay journalistes yoo xam dañoo ragal ragal. ba ñemewuñoo wax ci waa ji il les terrorise parce que booyee dañoo ñëw inondé réseaux sociaux yi kenn ku nekk da ngay créer vingt trente cinquante faux compte Facebook di saaga rek léegi nag bu dee Sénégal bi dañoo waaf man ma nekk le général du Sénégal en tant que député du peuple éternel député du peuple ma ne bu ñëpp waafee ndax booy bi wii soog a ñëw inauguré politique par mortel combat. quatorze morts am sur sur sur ordre de de de Sonko mu ne. mais c'est pas gratuit. la deuxième mais d'accord mais du lu amul dara Serigne Mountakha nee na ko. mais yow laa la wax non yow laa wax. personnellement sa engagement n'est pas gratuit. mais maa ngi ñëw ba may engagé. juddoo dama non waxuma non. mais dama lay woon même bu judduwul. mais raw na la ci politique aussi. rawuma ma ma mosuma daan mais may ak boo rawee dee may ma ñëw ak ma ko raw lu bëri dëgg ma yeggali dama ni quatorze morts sa ordre. nga taxaw guddi def conférence de presse ne du ma wujji indi ay problème Sénégal ba mu am fi quatorze morts nga taxaw ñemee taxaw dialogue Sénégal yi naan leen la deuxième vague sera plus dévastatrice mooy yow xeeb nga quatorze morts yi ay milliers de morts nga bëggoon mais kooku lan la ñuy wax bi ñu ko bàyyee jour bi ko Samba Sall yàlla ko yàlla yërëm bàyyee mu dem toog siège di def ay exigence sam yaa ngi rappelé di wax exigence bi lii laa teg mag Sall ba pare ni MFDC teg leen armée yi déglu ma xanaa yow dafa loolu dafa dafa rëcc ah kooku mooy chef rebelle nga teg leen temps yi armée yi déglu ma ku wax man man dégguma mu wax man man dama koy suivre de dama ko ah. may dara. ak bi mu ne dëkk bi dafa war a tàkk dem si mu taxaa si mu taxaa ne ko ku rey benn bakkan safara ngay dem. mu ne ko waaw xam nga Karim Wade dafee jaaroon ak Khalifa Sall mu ne ko déglu ma politique ak prison ñooy ànd i ma ne sama sëriñ bu baax bi yàlla na fi yàgg te wér sëñ Mountakha Mbacké bu baax mi Mountakha Bachir dëgg yi ko wax parce que ku ne dem na fa waxu la loolu mais boobu kii wax bàkku yi doon bàkku di menacé boo la ne eh. d'accord rey baaxul. d'accord waaw léegi buy rey nag yow kenn ñu bu mag bi. ok man porte la ko plainte pourquoi sama kër dañ ko taal. ci ci ordre am boobu moo gën a garaaw instant de criminel bu paree ci aji saar xanaa dana wéy aussi chambre criminel boobu moom rëccagul lii nañ dem rek la guerre comme la guerre. d'accord nga ni juddoogul comme ma ni maître nga ni juddoogul ma ni la raw na la ci politique. nga ni non raw nga du tax moom déggul monsieur le ministre. monsieur siège au conseil des ministres. mais loolu nomination la. non mais mais ci politique. li may wax loolu nomination la non dama lay wax non dama ni. mais mais maître loolu nomination la. gisoon nañ fi gisoon nañ fi Idrissa man pour man leneen nga may wax maître. mais en 2007 nga may wax déggul monsieur le ministre. mais en 2007. en 2007 dégg na maire de Ziguinchor. en 2007. waaye du ma rek loolu c'est électif. y a combien de maires yi. non waxuma la loolu. y a combien de y a combien de maires yi. non bu bu paasee. ay nawleem ñaata lañ man de 500 et quelques maires bu paasee plus fort reste bi nga demee assemblée nationale. wax ma ci wàllu pal. mais loo ci mës a téye ci ndobo tànk. moom plus fort reste la demee assemblée. mais dama ni la. d'accord naa loolu moom mais plus fort reste kenn kii ñi ma ko tudd. non ba foofu. Oh, oh. kenn du jublu ba léegi nii ba bër ki dee moo njaay maître puis dafa reste la génne assemblée mais maître maître nga baal ma nga xool ma xam nga ni sa rakk laa est-ce que man am naa lu may ragal ci waxu taxu may wax de non dama lay laaj rek xool ma nga wax ma rek yow waxuma la man laa wax non waxuma la yow ñii ñu koy tudd non da nga ni da nga ni par exemple plus fort xesam kenn ñemewu ko wax non dama gis waaw ah man dañ ma ko daan rappeler tout le temps mais ni gàccee la rajo plus forest mais kii mosuma dégg gars yi di ko renvoyer au plus forest au contraire da ci teg un an mu am 15 pour cent te pour cent boobu mu am. ci présidentiel. ci présidentiel. oui li ko ko may. li ko ko may. le malheur des uns bul ci wut alibi le malheur des uns. bul ci wut alibi non bul bul tilimal victoire am le malheur des uns fait le bu fekkee ne Karim Meïssa Wade. ok ah. ak Khalifa Sall bokkuñu. Mhm. ku nekk xam na ne PDS moo nekkoon parti d'opposition bi ëpp doole. Mhm. à l'Assemblée am groupe parlementaire. dirigé par Cheikh Mbacke Bara Doli am na wala amul. Mhm. moom mu nekk fa plus forest simple plus forest. Mhm. bi ñu bëggee def Idrissa Seck chef de la de l' opposition mu ne non non chef de l' ci assemblée ko war a jëlee ji. Mhm. ndax soxor ndax bëggul Idrissa sec am faveur yooyu yëpp moo tax ba ma gisee ñu dem tuuti rek Idrissa Seck dem au pouvoir c' est le chef de l' opposition ma ne ah ba léegi au parlement moom plus forest la fa di il faut être conséquent. moo tax ma ne la moom mënuma raw ndax mën nga ñëw de comme Idrissa Seck en 2007 moo jëloon deuxième topp ci Ablaye Wade Niass jógee 17 pour cent xawma ba 5 pour cent yaa ngi may rappelé yaa ngi rappelé en 2000 2000 pile 2000 Niass dafa am presque 17 pour cent ou 18 pour cent. wàcc cinq pour cent en 2007 Ousmane Tanor Dieng mi incarné le PS amoon 40 et quelques pour cent temps Abdou Diouf ñëw ba ay 8 pour cent. maître Idrissa Seck mi nga xam li ngay wax nii xam nga ni yow. may ma rek non non li ngay li ngay wax nii. ñi lay seetaan sax wax histoire la dama bëgg. mais c'est important nga wax c'est important ni ñu xam ko damay wax dama fi nga bëgg a teg may ma rek. bëgg a teg moom ëllëg dafa war a am pouvoir du dëgg dama lay wax ni Idrissa Seck en 2007. moo doon deuxième am quinze pour cent troisième huit pour cent Tanor Dieng quatrième Moustapha Niasse cinq pour cent Degene Ngole 18 pour cent ba cinq pour cent dama li wax li may réalité réelle inventé ma dara ñu ñëw 2012 Idrissa Seck di nga xam ne moo toppoon ci Ablaye Wade eh bien alors kii raw ko. Macky Sall bi soog a ñëw génn ci Ablaye Wade Moustapha Niass jógee 5 pour cent. su ma la bàyyee ba suba mënoo justifier que ni. Moustapha Ousmane Sonko raw la ci politique. raw ma ci laa jëm si. c'est-à-dire bu ma la fi bàyyee ba suba toog dina dégg dama ko raw lu bëri dama ko raw lu bëri. dafa am loo xam ne aussi nangu ko nangu ko ñu avancé. du ma ko nangu da nga ma bàyyi ma wax. du parce que lu leer laay wax alors Moustapha Niass bi jógee woon 18. garab ci kaw lay fekkante rambu na la ñëw 5 waaw d'accord naa maa ngi ñëw. maa ngi ñëw Moustapha Niass bi jógee woon 18 pour cent ñëw 5 pour cent yéegaat 15 pour cent 16 pour cent Tanor Dieng wàcc Macky Sall ñëw romb leen ñoom ñëpp am 26 pour cent ñes mi amoon 5 2012 yéeg ba ay 16 pour cent nekk troisième moo tax ñu def ko président assemblée nationale kon élection c'est pas linéaire da ngay yéeg di wàcc ba ngay yéeg di wàcc donc bu kii am waxoon naa kii am quinze pour cent. dañu fa jël à peu près peut huit pour cent bu Karim Wade ak sept pour cent bu Khalifa Sall yu ñu yu ñu écarté ak plus forestal muy un pour cent mu am quinze pour cent un pour cent lay lay posé au Sénégal ndax Karim bu jëlee li moom Khalifa Sall jël li moom quinze pour cent yooyu du ko amati un pour cent lay delluwaat waaye ko dafa muus am am ay nitam am presse am en ligne am ay télévision am am ay journaliste am xam nga ñu gëmloo nañu ni kii moo fi war a falu ëllëg am ay yambar yoo xam ne ñoo xam ne waa ji président la déjà di ko di ko kii mais moom xam na ni mi pesé réellement xam nga li waral ay wallu d' accord mais maître xam nga ni. xam nga manque de représentativité xam xam nga xam nga popularité dañ ci popularité dañ ci xàmmee leader politique. absolument xam nga ni bu génnee jaar fii nga génn jaar fii. ñëpp topp ma ba ko maintenant laaj ma dem Mimi Touré. mi jiite woon campagne législative ma ànd ak moom ak Talla Sylla Macky Sall nañ ko gunge ñu def tour du Sénégal amul benn dëkk bu taxawul Mimi Touré mu ngay déglu moo ma ooyee la star du convoi fu ñu taxaw nit ñi bu ñu seen daw fàq wutal si ma amul fu ñu taxaw amul Fuuta amul Bundu ñu Bakel amul ay añaam les añaam yu bëri yëpp amul ay Ourossogui amul ay Kédougou amul ay Goudomp amul Ziguinchor amul usu yi kabskëriñ amul fu ñu taxawul barke alquran laaj ko Mimi Touré mu laaj ko tey maa ngi publiquement nii ñu ngi may déglu dafa naa malaw léegi ci staffam la bokk laajal Abou Abel Thiam mi nekkoon aussi ci convoi bi sama popularité dafa dépassé borlu foo ko xalaat ti man dafa defoon tour du Sénégal aussi à dem en plus forest sama candidat yi ma amoon daanee département ñu nga fa ba léegi dañu xaw a tëdd mais ñu ngi jóg pour léegi nag popularité El bi nga xam ne amul morom Sénégal xanaa boo yëkkatee Macky Sall ci popularité man mën nga ci teg xanaa ak Sadio Mané même Sadio Mané gën a populaire je le jure lu leer laa la wax. Youssou Ndour. du ma moromam Youssou Ndour man c'est un grand bari na fans mais bu ñu wàccoo ci terrain bi mais sa waay politique rek mais sama fans club bi euh, amuñu morom Sénégal. te yow loolu mënoo ko xam tàgg àndoo waxal Mimi Touré mii rek wala nga ko si la non mais maître. wala nga ko Abou Abel Thiam téléphoné leen boo paree émission. man xam nga aussi. popularité moom non non mais yàlla koy maye. ma man maître. yàlla koy maye la preuve ne nga bi nga commencé kii bi. nga mm-hmm. laa Diouf kii réseaux sociaux bu ngi toj. mais négativement la loolu la wax. non pas négativement vous savez li tax ngeen ragal négativement li tax journaliste bi ragal mooy moom dafa préparé boppam ci ay terroristes. booy saaga di terroriser ñu rek fi ne nekk plateau boo dem am na situation dañuy pati wala ñu xool boo xool lan lan mooy commentaire yi ñu quoi dep il dépend ñu bëri des commentaires des des sonkolés là et ça c'est extrêmement grave def leen seen liggéey rek bu leen ragal dara mais moom ñëw ñëw na fexe na ba ñëpp ragal ko quoi ndax ay booy band yi mu àndal ñuy saaga rek moom mooy chef seen chef mooy moom mooy moom mooy orchestre mooy chef d'orchestre bi. c'est le président des instructeurs publics et vous le savez. d'accord alors maître. man day wax dëgg yàlla dégg ko mu saaga. ci la dëgg non man dama ni. mësuma ko dégg mu saaga. chaque jour ay Macky Sall ay Antoine Diome lu ne ak Bassirou Gueye ak sëñ Bassirou Gueye même président UMS Ousmane Chimère Diouf ñëpp lay saaga même feu Samba Sall même Mamadou Seck ñëpp lay traité de marionnette de xaw ma comploteur ku ne saaga na la yàq sa der ak ba ne yàq der maanaam jàlloo. bi nga xam deful dara mu singali ko mais ak ñeneen ak ñeneen mais kii ni mu ne ñeme àq d'accord alors man maître dafa am lu ma bëggoon mu leer ci ñu bari yow bokk nga ci ñi nga xam ne yéenay layal aji Sarr mais li ci jaaxal ñi parfois dañ lay laaj aji saar nga ne nañ ko laaji mbokkam parfois ñu laaj Adji Sarr nga wax ci lan mooy indi loolu waaw parce que ça dépend ci façon laaj bi bu dee nag may laaj aji Sarr ci côté boo xam ne daal Adji ah, warul def lii wala na ñëw def lii wala wartoon a wax ma ne yee eh, ko wala koy bokkam man Adji Sarr dugg sama kër moomu ma ko commandé wu ko ba ma la Adji ndax mu ngi ci jàmm ma ne la mu ngi ci jàmm ndax pare na pour tontu ji ma ne waaw parce que wax dëgg day tontu ji ëllëg yooyu dama ci tontu noonu la defee. d' accord maître beneen affaire tam bëgg naa ci am sa xalaat. Hmm? Adji Sarr bi muy wax dafa ëmb yaa ngi taxaw bi muy wax ëmbul yaa ngi taxaw ñaari image yëpp man teg naa ci suma bët image bu njëkk bi. ci interview bi mu def ak leeral la ñëpp dégg nañ ko bu mujj bi devant tribunal la bi muy wax ëmbul lan moo ci am ci loolu. wedd naa la Khalifa Diakhaté moo ko posé question bi sama kër TFM ba léegi ñemul teg interview boobu mu enregistré sama biir kër ndax xufu yu métti yooyu ngeen daw rek seen seen seen télé bi barke alxuraan ñu laaj ko boobu jour ne woy woy parce que day préserver euh, aussi euh, TFM bëgg ñu taal TFM alors. leeral teg ko mais félicité Dame Dieng ñu menacé ITV teg ko alors que ñetti télé laa choisiroon yéen. ITV tontu ma s'il vous plaît. ci laa jëm si li ma la laaj. ba ni gis nga li ngay wax nii. jëm ci TFM c'est la énième fois. Khalifa Diakhaté moo ko ni ko waaw ok. dañoo dégg da ngaa biir mu ne ko question boobu duma ci tontu. non sama patron yëg ni damaa ëmb wax na ko. waaye loolu bi Ndeye Khady loolu kay ma wax la xam nga fan la ko waxee. xam nga lan la waxee lu yéen ëmb gi ba mu demee gendarmerie ñu di ko laaj. <coughs> ca la waxee ni pour mu génn dafa ne dafa ëmb mais loolu xam nga lu fi rek di expliquer fond dossier bi mais pour mun a am parce que kuul fa lay nekk am na kilifa xanaa na taal kilifa gi def fii laa jëm te booba séq naag Ousmane. après mu wax lu dul dégg mu baal ma mu wax lu dul dëgg non non du wax lu dul dëgg non loolu parce que parce que parce que. non déglu waaw. non non nañ nangu ci loolu rek. ñu wax lu dul dëgg kii warul waaw xam ngeen ko. mais maître maître aussi. mais soo bëggee ñu waxtaan. mais may ma ma leeral la indi ëmb bi waaw non. laal may ma ma leeral indi ëmb bi moom jaam la woon ci kër gi xam nga ne couvre benn boutique du ubbi benn salon benn salon salon de beauté salon lu mën a doon coiffure rek salon tailleur rek couvre-feu jotee ñëppay tëj ñibbi wala. nee ma wala déet. non mu wax lu dul dëgg. non dama laaj loolu nee ma nee ma bu mu kuur fa bi jotee ndax duñ tëj bureau yëpp ak service yëpp. li ma toog waaw d'accord waaw d'accord léegi comme ñëpp tëj nañ mais moom sañul tëj ndax dañu ko na nekk seen yàlla te xam na ne yàlla boobu bi ba décidé na pour bu ñëwee bu ko defee li mu koy def mu dem ci yoon dem wuti preuve ci tàng tàng bi balaa preuve bee deñ. c' est le demee CTO mais pour ma génn kër gi ci biir couvre-feu bi ci guddi gi. dafa wax lu dul dëgg. dafa kàcc maanaam dafa dem. Mhm. ki ko def jaam. ne Xadija jëkkëram mu ne ma dama yaakaar ne dama biir sama biir baa ngi métti il faut ma dem seet ko mu ne tubaab toog lay boobu la pour mën a génn pour njaam gi deñ njaam moom noo mën ne pour génn ci dem ko def. d'accord kon fenul yàq yàqal kenn. fen buy defar a gën nee dëgg olof jaay ne fen buy defar moo gën dëgg wa danaa ko dégg de fen buy tax nga jógee ci njaam. ñëpp tëj yow kenn ngay liggéeyal koo xam ne sa yéen yàlla moom moom moom daal bu ñëwee ñu dañu nekk jaamam ñëpp xam ne kuy liggéey couvre-feu sax yow yow it nag kan mooy liggéey couvre-feu xanaa moom rek jaam bi moom jaamu ne Khady Ndiaye ak Ousmane Sonko mu ne il faut mu wut lay pour mën a génn pour échapper loolu la woon nag ñu bëri rek xaw ñu mu demee rek ñu bàyyi leen ci bëgg gi rek ñuy sa tajax yi moo tax bi ko Khalifa Diakhaté laajee sama kër. ñu ko waaye yow dañu dégg da ngaa biir mu ne ko loolu du ma ci wax parce que xam na ni stratégie la woon pour génn échapper pour mën a am preuve immédiatement mu ne dem CTO noonu la demee. d'accord metre am na laaj buñ ko laaj. Hmm? Ousmane Sonko moo ñu ko révélé. waaw man laaj ci biir. Hmm? avocat kenn ci avocat Ousmane Sonko yi moo ko laaj. <laughs> wax ko làkk ko français mu ne ko moom jàngul mu ne moom jàngul. Hmm? ci koo xam ni dafa def plainte laaj boobu xam nga laaj boobu du laaj bu ndaw laaj bu mag la laaj boobu est-ce que du tekki ni li ñuy wax ni complot am na ci am na ndax am na ku ko bindal plainte bi ku dul moom ci boppam maanaam am na avoca bu ko bind ñu ngi ci doon tudd maître Gabi Sow ak ah. keneen ah. mais est-ce que jàppuloo ni laaj boobu ñu ko laaj loolu lañ ci jublu woon pour xam ni complot am na ba moom mu dem ci ay avocat yu ko biddal man daal man daal daa foog ni sénégalais yi ne ndeysaan seen xel yi dañ ko dañ ko capté yow kenn a dara wax keneen mu bind la sa ñaa foofu non ñëpp gis nañ ko soo demee ci police yi gis ñu toog di bind moom la la tax ñu wax ko mooy moom la dañ ci dégg turu koo bind koy bindee mu dem seet avocat mu bindal ko ko dañ koy aaye non kenn aayewul loolu avocat bi loolu ko bindal dañ koy aaye loolu la mooy complot non avocat yow ñu ngi lay teg loo xam ne mënatoo ko supporter nga wax ko ay nit ñu ne la boo ñëwee ñu defal la plainte bi loolu que ko bindee day comploté waaye nañ bàyyi bu ñu bëgg a defloo nit ñi ah bon ko mënoo bind moom lim jàng yeggul cm dam jàng ci tubaab français bëriwul donc loolu pour mu bind plainte xamul nu mu koy bindee su dem seet de l'art ki ko mën mu bindal ko ko dañ koy aaye loolu mooy complot yow nga bëgg ci ànd yow. yow xam nga sa xel ëpp na loolu. xam nga ni yow yow xam nga ni avocat nga. bi avocat bi posé question boobu xam nga lim ci bëgg xam. xam nga ko dama ni la dama ni la amul li mën a xam dama ni. waaw loolu yëngaluma parce que daf ci am droit dafa am droit am lu ko metti mu bëggee a porter plainte seet ki mën a bind plainte avocat wala kenn ku mën a doon ku dégg droit mu dem mu bindal ko plainte bi mu déposé ko ana complot bi nañ bàyyi bu ñu tafloo nit ñi. parce dem na ci keneen mu bindal ko plainte bi rek. avocat bi ko gis 15 jours avant loolu di am. waaw li ñuy wax waaw. parce que parce que dafa tawat yaakaar tawat luy wax viol répétitif lañ topp Ousmane Sonko non wala benn jour yi ko topp. avocat bi jël téléphone am di woo gynéco bi. naan ko fan nga toll ci certificat médical yow yaa gis loolu yow. non dama ko dégg. ok ñëpp dégg nañ ko yow loolu dé ko wax ko. lu mu wax dëgg la yéen sax nga xam ne di manipuler nit ñi rek allahu akbar lu soo yéen daal Sonko moom seen yàlla la daal lu wax rek ngeen naan ko <coughs> ndoxam daa parole d'évangile la eh, eh Pape xamoon naa la plus critique Pape kay nga bàyyi di ko nii yaa ngi bàyyi di ko de gën a ngaa wax noonu. maître dama ni Ousmane Sonko li mu wax. lu wax noonu la loolu non xam nga yow yaa may wax noonu la wala du noonu. loolu laa bëgg a dégg. Hmm, du noonu li ma la laaj. day manipuler leer la xam nga li ci dugal su demee bay laaj. juge bi. nañu déglu ku mel ni Mamour Diallo. parce que am na lu mu ci dégg. waaw dañu dégg benn audio bu ci ah. Mamour jàlloo wax. bu ñu demee ba dégg. Hmm. lu mu lu muy laaj ku mel ni MC Niass. dafa am lu mu ci wax ñëpp dégg ko. bu ñu demee ba moom mu personnellement mu wax ni ba ñu dégloo gynéco bi. Hmm. muy Alfousseynou Gaye hmm. la mu leen wax mooy. Mamour Diallo ànd na ak avocat bi di ma woo téléphone di ma laaj. loolu ko wax. mais loolu dégg nga ko yow itam. soo ko déggul yi wax yii di wax lu leen neex rek. kon daal yow yow dossier bi yaa bëgg gën a xam. man du ma jox ci dossier bi ndax. waaw non man man loo man ñëw ma fi en tant que avocat. non maître loolu leer na en tant que mooy li ma la yëgal mooy ay waxi ñooñu yow du dégg ñu naan fi amoon na jàppante ci biir bureau juge bi nee nañ sax PV enquête préliminaire dafa réer du Bassirou Diomaye ko bind ñëpp gis ko ci page Facebook gis naa sax tey euh, info matin ku am fit dénoncé loolu ci benn ci journaliste yi très bien kii moom am na fit mu ne mais nañ bàyyi di wax mu ne loolu da koy décrédibiliser boo bëggee ba cité la tur ko waxte ma ko journaliste yi euh, am na ko wax loolu te est que doon Mortala Gaye mm-hmm. te info matin avec ñoom euh, kii mm-hmm. soxna naata mm-hmm. xam nga je suis xam naa ñi ñeme ak ñooy yox yoxi nee na loolu de décrédibiliser ay leaders toll ñoon noonu ku ñaan bu fi Ousmane jógee yaay numéro 2 et cetera ngay taxaw di fen fen yu réyee noonu ah? naan PV daakee bi dafa réer moo ko bind alors que boobu machine bi moo amoon quelques problèmes ndax dafa am greffier bu bees bu loolu Sonko expliqué na ko dégg nga ko. waaw ma yow yow bu ma wax loo affaire Sonko mooy kan. bàyyi di wax Sonko. bu ne ma affaire Sonko. mooy moom. Sonko mooy seen yàlla yéen léegi mais man du sama yàlla dama may ma tuuti rek soo numéro de mi ngi bëgg a nekk sa yàlla de. yàlla ci ban man benn yàlla. yàlla non mi ngi bëgg a nekk sa yàlla àll rek àll. xoolal mi ngi bëgg a nekk moom. dafa nekk déglu ma rek foofu Bassirou Diomaye moo taxaw bind kàcc ni Sonko ni d'abord Sonko jàppante na foofu. Mhm. ak Adji Sarr ce qui est faux. bi noonu euh, avant mu bind enquête préliminaire bi PV bi dafa réer. comme comme waxi Sonko rek daan dañoo ra euh, Bassirou Gueye dafa changé PV bu njëkk bi xam nga loolu la bëggoon naan PV bi dañ ko falsifié dañoo mën a kàcc ci la ñu nekk rek manipulation. non loolu Sonko wax ko rapport gendarmerie moo ko wax même avocat. rapport ak rapport dara. loolu ci. ok ci waa ji rek la bëtam yi xool léegi kii ci boppam euh, comment dirais-je avocat Sonko bi ñu génnee nee nañ benn histoire amul entre Adji ak Sonko waxuñu ko. loolu ci Sonko laa ko déggee. waaye ñoom ñu wax ci xalaat doo xool télé man laa la wax ci Ousmane Sonko laa ko déggee day mbir soxla ma Sonko di ma informé d'accord man ci moom laa ko déggee waaw moom moo ni moo ni benn coow amul ci seen diggante yar ak teggin la ko aji saar woon ay avocat am lañ njëkk a laaj avant muy def conférence am boobu mhm. ci buntu tribunal bi mhm. Ousseynou Ngom di loolu amu fa mhm. te avocat Sonko la kon numéro deux Sonko fen na kon parti am fen na parti boo xam ne fen na ko lal ak ak manipuler nit ñi rek mais moom biir génne nee na ma na juge bi fu mu tontoo juge bi d'abord mësul tontu juge bi mooy koo xam ne dossier bi commencé ba tey kenn mooy wax muy Adji Sarr mos demul ci bi ko gendarmerie ooree demul donc amul enquête préliminaire bokku ci kon PV boobu wax Serigne Bassirou Gueye moom bokk ci il n'est pas dafa bañ. bi ñëwee juge d'instruction aussi mu di ko laaj sur le fond mu ne ko je ne vous permets pas de me poser des questions infamantes et attentatoires à mon intimité moo ko wax de génne wu benn secret parce que ñemewu génne benn secret de l'instruction moo ko loolu laa tontu juge bi mu ne ko daf pare nga bu def test ADN mu ne ko jamais du joxe sama deret mel ne deret booy def test ADN moom kay moo bañ setal deram parce que mënul setal deram léegi def confrontation pour ñu jàngul ñu leen bëgg a nax lan mooy confrontation du indi ay preuve de. dégg naa démb ba tey preuve bu ci amee yàqu ko ma ñëw preuve yi non du preuve su amee ci confrontation yàqu ko de. amu amu ca amu ca droit xam nga lan mooy confrontation définition dañ teg fi bi ak ak même ñiy dem instruction yëpp du ay indi ay preuve déedéet kay. non yow déglu ma yow yaa accusé. waaw du loolu. yow yaa ànd ak ki accusé sénégalaise sénégalais. permettez-moi de vous expliquer. ce que la confrontation dans le bureau d'un juge d'instruction. C'est quoi? C'est quant les déclarations son contradictoires. Il y contradiction mooy bi ñu laajee kii lii la wax kii ñu laaj ko mu wax lii mu am fu ñu woroo wax ji woroo dégg nga de ñu ne leen waaw yéen fii. maître wax ji du benn fii xam nga ni ay preuve yàqu ko. waaye preuve yi déglu ma. non dama ni ay preuve yàqul confrontation. c'est-à-dire preuve fa yoon. yi Adji Sarr doon wax. preuve avant ci leneen. mais dañ doon xaar par exemple loolu mu teg ko ci table bi juge instruction du atte. preuve yi à la barre du tribunal koy génne. waaw d'accord dama lay jàngal tuuti droit. amul problème dérangé wu ma loolu. dama ni la. waaw ñiy wër di wax comme Sonko ak ñoo ñooñu di wër di wax. ñoo gën a xam ni confrontation du affaire preuve. confrontation mooy dañuy xool seede wax ndax ndax ànd na wala ànd fu mu réeroo. d' accord dama bëgg Sénégal yëpp mu leer. d' accord léegi confrontation mooy kii wax na lii kii wax lee ñu xool fi wax ji woroo ñuy xool ñoom ñaar kan moo ne waxul dëgg ay wax waxumaay bërëb de mais comme kii lànk na du tontu Sonko moom déjà confrontation jarutoon muy am parce que moom du wax xëy na juge bi foogal na ni. non maître comme bañal na ko bu njëkk. <clears throat> bu bañal na ko tontu xëy na bii paas dina tontu bii paas mu ñëw. maître tontuwul juge bi tontuwul procureur tontuwu ma. non kon confrontation moom moo ko yàq. maître maître Ousmane Sonko. Adji Sarr tontu na juge bi tontu ma. bi ma posé question ay euh, Sonko mu ne du tontu. non non yemul ci du tontu am na leneen lu mu la wax. nee na yow waratu waroo nekk avocat. waaw ah, waaw tu n'es pas légitime. des Paris man du am wax ak yow du ma la tontu. avocat boo koy nekk du moom moo wax war naa koo nekk wala waruma koo nekk ku yabaate la yokkute un des avocats la njëkk a saaga saaga experts yi saaga notaires yi saaga magistrat yi saaga procureur de la république saaga doyen des juges saaga Macky Antoine Diome Dior Diagne ku ne lay saaga respecté doomu aadama xalif généraux yi mu di saaga sëriñ si mu di saaga bawul kenn kon. mais li mu lay wax du condamnation bu mu la jox la nee na. daf la ko jox nga gis. parce que sequma ak moom parce que man owuñu ma maag moom xam nga il va créer une affaire dans la affaire man owuñu ma maag Ousmane Sonko pour ñu gënante ay preuve <laughs> owuñu ma ma ne Ousmane Sonko pour duñu confronter ñun ñaar muy génn ay preuve contre man yow boo ko waxee sax tuuti ma xawle ci xeeb sama jeune frère ndax xam nga confrontation bi man bokk ma ci du du ay document dañu wuti ay document contre man kon man lañ confronter pour gagner procès maa ngi moom dañu am procès devant le des juges xale ñàkk fayda daf la récuser rek. ñàkk mënoo récuser mënuma récuser nag avocat jàmbur ko récuser juge lañ mën a mais pas avocat avocat ko wóolu moo koy jël mu liggéeyal ko man Adji Sarr lay liggéeyal kon mënuma récuser loolu ku xamul droit moo ah, koy wax non non maître mais moom ak argument yi mu teg li mu la wax dama la ne dama ne la loolu da doon jaay muus xam nga koo mënul tontu ci dañ koy laaj hors sujet yaag aji saar aji saar wax na lii yow loo ci xam mu ne pat aji saar nee na lii mu ne pat aji saar ne na lii mu ne pat juge bi laaj ko yëpp tollu ci dara loolu mooy confrontation. yow nga laaj ko lan. man loolu bëgguma génne secret. ah non li génn bari na itam. waaw xam nga ñun waxuñu ñun li public ñuy wax moom day génne mais kenn du ko wax. amul sañ-sañ wax ci loolu moom moom dafa yabaate. waaw moom day génne rek. moo tax di ko tontu d'ailleurs di ko tontu politiquement mais pour ma dugg ci dossier bi yooyu. du ma ci dugg du ma def erreur boobu. c'est-à-dire sanction ngay bañ a jëlati rek. waaw loolu lay bañ ah. mais mais c'est normal. non c'est vrai yow bëgg toujours sanctionné la yow. non non non non non. wala toujours bëggul dara ci kër gi war a ko def non non xam nga. des avocats bu ñu bëggul ñu génne sa kër yi man dama ko génnee. mais li ma wóor daal mooy. da nga koo génne génneeti ko ñu sanctionné la sanctionné ti la. kañ kañ laa génne ba sanctionné ma su ma génne benn benn secret instruction j'ai jamais été sanctionné à cause ah d'une violation du secret d'instruction ma su ma am. mais maître sanction bu mujj bi nga ci jël ci lan la woon. des avocats waaw. Euh, Hissène Habré bi may xeex ak policier bu nu këram ma war ko défendre ñu ne ma doo dugg ma ne jaral dama sama bakkan ñu ne ma avocat wu dem di xeex ma ne bu ma bëggee def sama liggéey abre yaakaar ma ma ñu ne instruction acte bi war a def war naa am avocat bu ko fekkee. non ak robe bi. ak robe bi ak robe bi nga nekkoon. xam nga robe bi tam sol ko non robe bi. waa xam war a loolu dama ñëw wàcc ak sama costume vert rafet service gàddu sama 4x4. ñoo ñoo présenté wu sérieusement ni leen correctement dama bëgg a assister sama client seen abré xoolal ñu ne ma noo doo fi dugg ma ne mais policiers yi xanaa xam waxuñu leen ne avocat client na bu nekkee instruction lépp lu ñuy def dañ koy oo mu toog fekke ko parce que bu ñuy fuyee këram perquisition mën nañ fa dugal yàmbaa mën nañ fa dugal ay fetal ne ko yaa ko avocat daf ko war a léegi bi ñëwee ne ma doo ko fekkee waaw ma ne xëy na ni ma sol robe moo tax te comme acte d'instruction la. waaw robe laa war a sol. ma jëli sama robe sama oto pour ñëw dugg liggéey fekkee liggéey bi. yéeg ci kaw taxi bi. waaw bi ma solee sama rob yéeg ci kaw taxi bi déglu ma non loolu dafa lu ko waral bi ma solee robe bi dafa lu ko njëkk. ma dugg ci biir ma ma ñëw. yéeg taxaw ci kaw taxi bi. waaw maa ko assumé mais avant loolu dafa lu ko jiitu. ak robe bi toujours waaw waaye Pape gi xanaa bëgg ko xam. bu ma nee may leen man damay assister sama avocat sama client ñu bañ. ma ne xëy na li ma solo robb tax joxuñu ma cër dañ ma yemale ñëpp parce que avocat bu solee robb lay nekk vraiment avocat ma dem sol sama robb ñëw ni leen xanaa léegi leen ma bàyyi ma dugg ñu ne ma doo fi dugg di ma ba wax maa ngi ñuy bëxante boobu bëggoon naa wane maa ko tey bëggoon naa wane ni violé nañ les droits de Hissène Habré mooy droit le droit d'être assisté par son avocat mooy bu ma yëgee taxi bi aussi pour wane pour preuve wane ni bi mu ñëwee pour assurer sama client ñu bañ ma sa robe bi ñu bañal ma ko Hissène Habré nekk otage ci biir ñoom ñoo ñu wër ko yëpp arbis koo daa avocat warul fekkee loolu metti na de mun nañ di jaral na ma dee tey ndax ki ma yaakaar ñu xañ ko sama présence di ko noggudu ci biir këram te yoon ni lépp luñ koy defloo lépp luñ koy laaj dama war a toog ñu ne ma doo toog ma def scandale boobu ñëpp yëg ni après bi ñuy def fuy këram pour bu ñu fekkee ay yàmbaa wala dara taxal ko ñu xam ne dañoo violé woon ay droit am ñu annulé PV PV de perquisition bi yëg taxi bi yëpp boobu j'ai cherché des preuves pour annuler tout la procédure loolu affaire dof de <laughs> léegi nag gars yi ci biir euh, avocats yi am ñoo comprendre ñu woon ñu ooma laaj ma man leen lii laa ko defee ñu ne bon suspendre les trois mois garaawul assumé naa ko lu yàgg na man man damay assumé masuma violer secret de l'instruction kenn masuma sanctionné ci loolu masuma lekk xaalis sa client aussi suspendre ma kon man damay def sama liggéey correctement macha allah mais moom naa way demandé naa ñu rajo ko moom bu ñu may rajo ma koy demandé avocat yi ñàkk fayda saa à dire que léegi mosul wax loolu de ah mais xam nga ku ragal da nga problème moom El Hadj la ragal yow war a wut ay preuve ñëw pour seetal sa der nga indi ay document kon El Hadj Diouf pour rek du fekkee sa procès ndax xam nga ne procès bi bu taxawee yow dèjà yaa ngi yaa moom rek nga ragal taal nga këram faalewu la jël nga une armée de mille personnes di ko saaga suba ba ngoon jot faalewu leen ñu ne comme ci saaga doyul nañ leen rey ko ñu ñëw ak ay jaasi ak safara ak pétrole jël rajo sama kër ba barist taal ko wala dama ko sos taal ko ni kii dana dellu ginnaaw sama mbokk yi ragal daan waaw lii lu ko fi jar aji saar jaru ko ah ah lii benn client jaru ko bàyyi génn ci ma leen génn man man man man man manuma noonu nag man dama ko jox xoxatal kon man jéem nañ ma def lu ne pour ma génn ci dossier d'accord maître léegi nag nee na mu ngay seet ay areek mu ngay dem fëleeg mu ngi seet ay xaritam ak ci xëy na ca baro bi am na ci ñum yaakaar am na avocat yoo xam ne moom nañu àndal am na ca xëy na ay militant ñu ne nañ fexe nuñ dàqee El Hadj Diouf comme ça kon affaire bi yam yamatul ci défendre sa client mais daf ci am règlement personnel yow ak Ousmane Sonko loolu la xam nga non non non laaj ndax dama ni au delà de défendre sa client daf ci am règlement personnel non yéen ñaar waaw am na parce que ma dama feet ko taal sama kër ku ne am naa parce que porté naa ko plainte pour incendie criminel moom nee na porté na ma plainte moom li mu moo gën a garaaw ay booyam ñëw taal sama kër moom moo joxe mortal combat moo doon da taal dëkk bi au ku ne ñu nañ taal total ñu def benn liste Dior Diagne El Hadji Diouf kër Antoine Diop ñu taal ko xombol kër Mansour Faye Saint-Louis kër Birima Ndiaye mii fii di ñëw ci émission jàkkaarloo parce que ñooñu ñoo bu dee ci mbir ma ak El Hadj Diouf ñoo ñoo ñemoon wax à l'époque kenn ñëwul tudd Sonko boobu loolu ñun ñaar bëgg a dëkk bi moo tax ma ne c'est des terroristes c'est de terroristes terrorisés kenn ñëpp di pat pat pat ah booy Sonko yi dañoo garaaw même la preuve bi ñu koy au tribunal xoolal xoolal dafay nekk ci ay policiers xoolal mbedd yi ñuy bloqué ndax ay booy bandi la yore qui sont capables de de tuer à tout moment Adji dafa am dafa am policière 24 heures sur 24 ñu ko ñu ko pexe man de aussi dama sama garde rapproché yow bu ñu demee ba Sénégal amatul sécurité ndax ndax Sonko ku nekk ragal di wut ku la garde avant loolu Sénégal réew jàmm la woon ndeysaan Sénégal Senghor mais xale bi bi mu duggee ci politique ba léegi seytaane seytaane bu rëy la rey leen mortal combat danañ jëla seen bakkan la deuxième vague sera plus dévastatrice yéen rebelles yi déglu leen ma mais quand mais gisoo ci leneen loo xam ne lu positif la. ci duggam ci politique ah non non non. c'est un recul démocratique c'est la culture de la violence ñëw ni fii TFM bu taal TFM moo feneen ne ma de après dañoo reculer ndax da a tax préparer seen bopp fekk taal nañu RFM taal oto oto Ndiaga Ndiaye defe naa ak ma Kumba Bay am na wala amul c'est-à-dire man li may bañ moo ñu ku bandi bu ñëw ci seen politique ñëpp ragal ko wax de bandi nga. ñu ne ay nit ñu civilisé civilisé ñoo fi nekkoon te ma Pape Ngagne loolu laa la bëgg a leeralal nañ bàyyi jël benn ginaar saxal ko ay bëjjën ba foo ne moom nag la soosu ko tekkiwul dara ci politique Ousmane Sonko gis nañ fi Marine Le Pen. te loolu urne duñ ko wax de. déglu ma rek gis nañ fi Marine ah. gis nañ fi Marine Le Pen urne duñ wax li nga wax. Marine Le Pen waaw. c'est le premier parti de France. parti bu doole parti Macron ëpp doole parti bi amoon doole ak ak parti kii euh, de la droite la les républicains ñoom ay François Fillon ñoom JP mais bi mu ñëwee bu la neexee léegi raw na leen. comme raw comme ku ëppalee ndax discours am. maa ngi ñëw ndax discours discours bu bon bi mu yore comme discours du Sonko dafay France jógee moom it day naan na fi Sénégalais yi jógee ak africain yi xam nga euh, discours yooyu euh, raciste yooyu. yo yooyu la développé moom moo Guy Marius Sagna France dégage ci yooyu cooy nekk ci nan day day day bu ñëwee day résilier les contrats pétrolier yi signé ak ay France ak yooyu jox ko ñeneen parce que France wax wax yu ko neex donc Marine Le Pen. diaspora bi ànd ci ak ñoom. d' accord parce ci ak moom d' accord naa. oui partie de la diaspora. Ah, mais diaspora bi ànd ci ak dañoo neex a nax ndax boo xam réalité koo xam ne moom addinaam yëpp manipulation la. mën nga tombe dans la manipulation ba ba may leer sa bopp ñu bëri la bi ma demee Paris une semaine laa ñibbisi juste je suis le le cinq de Paris sama doom amoon doom muy sama sët léegi maa ngi dégg maam ah sama macha allah sama premier sët après ñu tuddee ma doom ji muy neex lool il fallait que ba dem Paris kon du dëgg. événement bu neex la woon ma dem bon maa ngi nuy sama goro ji bi seen sama doom Antoinette Diouf. di la ak sama turandoo Arona Moustapha Diouf ma Arona Moustapha Sène ji bi Sène la sant d'accord ma dem ak sama jabar ñu daal di ànd Paris moom su ma jiitu mu fekkee tudd bi man après laa dem lu dëgg sama doom doom bi aussi ci ëllëg sa sama jabar dem kon man dafa am nu may doxale man dama gëm sama réew man dama gëm solidarité humaine man dama dama fonk doomu adama ci ce n'est pas pour me vanter mais yow pam nga xam nga man ku ku fonk doomu aadama la waaw en tout cas ce discours ci Ousmane Sonko wane ko. yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow Pape Ngagne ak ñu mën a nekk fi ñu bëri xam nañ ni sama nit ak sama réew événement bu am mooy bu neex ak bu naqari man dama ñëw fekkee. yow mi xam nga ci dara. dëgg la. du ma lim kenn nag parce que bu def di ko wax baaxul def dem naa dëj diw dem naa kii diw du ma ko wax mais xam nga dama nit ku baax laa nit ku solidaire laa nit ku fonk doomu aadama laa wala déet mais bu ma gisee safaan bi gis ku ñëw ku bees te bëgg a taal réew mi dèjà taal na ko ñuy wax mu ne danaa taal ma yore naa fii kii bi mu ne booba danaa ko teg sax mu ne wu almet bii taal dëkk bi am naa ko. am nga béy weex boobu ma ne kii rek il faut xeex moom kii moom Sénégal la bañ Sénégal rek la bañ mu ngi ni mu ne mu ne am na bii taal dëkk bi am na ko léegi day taal dëkk bi yéen du ngeen koy suivre na nga koy suivre que loolu moom intéressé si moom yaa ngi naan doo ko suivre yaa ngi naan ma koy suivre mooy fu mu attaqué Sénégal ni doo ko déglu doo ko doo ko lijjanti non dama lay wax dama lay woon fii rek je te montrer ay waxam fii ah. waaw ay waxam fii daana génne léegi voilà dañ koy jagleel benn nit ci ci askan fii xale bi ak maqaamam nu mu toll bu recevoir imam neen maa dem jox li benn événement yi moo xam màggal moo xam gàmm moo xam lii lii war na dem gaa gravité loolu c'est-à-dire il faut njëkk xam combien c'est grave sa parce que xaalisu ay néew du doole yu ñàkk su bu ngoon la ñu dajale ko ci suñuy lëngu war fii non mais maître fii xale fi soo gisee ma lay déglu. c'est parce que da nga ni dafa wax ni almet bii taal réew mi. maa ngi ñëw maa ngi yëpp laa enregistré maa ngi ñëw. yore na ko te man loolu mosuma dégg mu wax ko. loolu moo tax mu ngi na ko na koy tegal maa koy tegal en attendant nga koy trouver dama bëgg nga tontu ma leneen s'il vous plaît léegi rek ma tegal ko léegi salaamaaleykum ma tegal ko non amul sarax ma maître soo bëggee jàppoo nii dafay xaw a. non non non may ma minute minute minute minute minute minute minute minute minute minute voilà voilà ngi ni fii la koy waxee. sos suba ngoon guddeeg bëccëg ànd naa ci man. te sax àdduna kenn du ko dajal ku dul umpale dañu lay ragal faaw nit ku ne. am ñuy teesal ngir bu ëllëgee ñu mën laa seetal fu ne nga nekk fa fu ne nga dugg ca hey hey bëgg naa nga dal. di fii man wax daa leen ko dinaa leen ko waxaat bañu ku ma ne ay day yee na wala dafa violent. bu dee réew mi dafa nar a tàkk sax na tàkk. wiyoo moom la jël naa fexe ba xajabal ndam gi. naa fexe ba bool bi naa ko xajamal. Ah, al almet gi ma doon wër boobu ba léegi pour taal dëkk bi almet boobu jot naa ci. Naam dem naa ko vingt et une parce que li ma yëg ci sama yaram ba xam ni war naa dem defi sama séance de massage man maa ko xam. maître pardon maître est-ce que xam nga lii nga wax ni tekkiwul li li nga bëgg a wax yow. du lii ma lay wax nii lu leer ah. lu ma nee non c'est-à-dire non non. xaaral Albert Jim la wut pour taal dëkk bi am na ko. loolu laa lay wax nii xam nga ci ban contexte la ko waxee. ah da koy défendre non non waxuma défendre. Ah, kii mën na ko défendre. non waxu jéemuma koo défendre. jéem ñoom la génne ci li nga li ma dégg laay wax sama xalaat. li fi wax yëpp ci affaire taal dëkk bi li ma li ma dégg man li ma dégg jéemuma koo défendre. li ma dégg laay wax sama xalaat ndax xam nga ni lu mel nii yow mën nañ la ko tegal fekk na du lii nga bëggoon a wax xam nga loolu damay bañ ëllëg mu dal la nga ni nga ni dal na ma émission. dégg fi. crise sociétale. parce que ku ñàkk la ci sa bopp surtout am ndaw nga xam ne société bi soxla na la mais pas ci xeex xuloo soxna la pour la construction de la nation waajur soxla nañ la jur nañ la yar la toppatoo la ba nga toll ni nga toll ñu yaakaar nga war leen mën a dimbali yow amoo benn fulla sa bopp lu dul benn politicien boo xam ne ci jamono ji mu lay yónni pour nga xeexal ko moom doomam ma nga Canada wala États-Unis tëdd nga dem di rey sa bopp ci loolu ñooñu la ñu war a waxal tey man aw ma je n'ai rien à dire aux politiciens yi sikk nañu ba noppi mënoo dara si ñoom mais jeunes yi leen di topp au ko de pour et di génne ay jaasi di tëb di dal ci loo xam ne politique du loolu politique maître mais lii discours bu njëkk la woon. mais ma dama leen dama leen chronologie bi. d' lii la bu bii soo commencé. mais non non non li nga li nga teg nii rek non njëkkoon a wax. waaw d' léegi dañoo dañoo génne yu njëkk ya te léegi dina gars booy wàcc leen Mortal Kombat. d' bii bi mu koy wax en 2014 la. moom affaire bi idée la du affaire xeex. d' mais dama yëpp la chronologie. d' léegi lan moo ci indi boppam bi nga ci tegaale yow tout à l'heure lii wala da ko jot noonu ci ci TikTok wala. non lii waaw lii dañ ko préparé dama la woon gars yi dañuy préparé contradiction bi yëpp teg ak ni mu bëggee taalee réew mi teg. d' accord waaw ah, accord mais mais dégg nga li mu wax nii. que àndul ci luy taal réew mi. loolu bu njëkk la ko non maître waxuma bu njëkk la ak bu bu njëkk la ak bu mujj léegi daa changé lii bi muy soog a ñëw la. booba kenn xamagu ko ko booba demul sa assemblée nationale en 2014 la mu ngi soog a ñëw pour dugg assemblée nationale déggoo ma lii la bu ñu mënoon discours mu njëkk ne politiciens yi baaxuñu débat di dee moo war a am mais bërki dee moo njaay la waa ci def conférence d'après guddi ne wàcc leen ci bedd bi man 14 moo war a am discours bi mun naa la woon photo bi boobu booy la mu ngi nii ima xool image bi mu ngi nii. c'est bon. donc kii gëmul dara day wax rek kon bu njëkk la mu gëmoon gëmatu ko léegi xeex la gëm léegi rayante la gëm léegi bu ñu ko ooyee tribunal. da dañuy dañuy barricade si maanaam léegi affaire banditisme la ñuy jaay. d'accord mais maître yaakaar nga ni régime bi se contredit. non non maître est-ce que yaakaar nga ni régime bi nii ñu taxawee tey jàkkaarloo ko ak ñii ànd ak Ousmane Sonko tey maa ngi dégg ni jàpp nañ Fadilou Keïta jàpp nañ ay garde corps Ousmane Sonko jàpp nañu ñu bari ñi nga xam ne ñu ngi doon ànd ak Ousmane Sonko ndax jàpp nga ni lu mel noonu. ñoom dañu war a taxaw rek taxaw di ko xool di seetaan loolu loolu kenn xamul fan la jëm ak ñoom. waaw xam nga yow. man je pense que état bi dafay yéex def lii ndax euh, olof Njaay nee na bukki bu yabee waxal euh, gaynde ci ca doxin wala mhm. bukki bu yabee waxal maa ne ca doxin wala ko bu yabee gaynde comme ni ngay waxee parce que état bi dafa leen bàyyi ba ñëpp ragal Ousmane sonk ba bi mu ñëwee devant le juge d'instruction au lieu de placer ko yow nga gis viol kuñ ko accusé téye buñ la prison mais suñ xarit nekk ci pouvoir bi nekk APR nekk PCA ancien directeur kuddu COUD ancien chef de cabinet du premier ministre Macky Sall Sitor Ndour mu ngi ci prison bi pour affaire viol boo xam ne yàlla rek xam il est présumé innocent Cheikh Yérim Seck bi ko accusé viol moom la du moom mais dañ ko tëj ah mais moom ñu ne ko kaay bu ne duma wujji taal dëkk bi ba bi ñëwee juge bi pour bëgg a jàmm am xam naa may ko contrôle judiciaire lu kenn mësul gis mu am privilège am avantage bu ko bu ñu mayu keneen Sénégal viol yi nga may wax yëpp ndax doole ji mi jaay viol yi nga may wax yëpp ñu ci ay responsable politique yu nekk ci ginnaaw ay oto bu dem jëli ku jigéen kàkk par ay Mamour Diallo ñu tudd ko ci yooyu ah mais mais mais ma ma yeggali affaire non viol yi ngay wax yëpp. non bu Sitor Ndour. dégguñu ci lu mel noonu non affaire viol dama ni. bu keneen ak keneen dégguñu yëpp. ñëpp prison lañ jógee même tentative de viol dañ la yóbbu prison mun am liberté provisoire parce que c'est un crime le viol a été criminalisé au Sénégal bu ñu la ko accusé mu am début de preuve rek dañ la yóbbu ti moom weddiwul ne dem na Sweet Beauté weddiwul ne guddi gëm fa demee kenn wartoon a génn bu loo wanee ne am na benn kinésithérapeute fajkat bu nekk foofu. loolu du début de ti moom moom dafa feebar bàyyi ma teg maa déglu. yéen yow un faisceau d'indices concordant ku jóg guddi ku war a jóg bu dem àll foo xam ne kay war a faa de heure boo war a tëj ndax ku wër lay nekk. parce que député am nga nga génn. loolu loolu ba ba léegi waxagoo ma début de preuve. waxuma dama la buñ la jiitee jiinee jiinee viol foofu. waaw te comme ni nga ko waxee nee nga am na oto bu jël si xale bu jigéen bi ci tàng tàng bi yóbbu ko. waaw. pour wa pour génnee ay preuve balaa preuve bee deñ kooku gën a dugal boppam ah ñu ngi naan diw boo jël si xale bi pour dem marché la woon lu tax xale waroon a génn fu mu doon dem marché wala hôpital prélèvement fi may defee. ba mu fa ba mu fa demee ñëpp dégg gis nañ certificat médical bi li mu wax. dama ni certificat médical bi du ñëpp lii nañ ko. waaw lu ñu ci bind prélèvement en vitesse ADN. non non loolu kenn du ko liir. pourtant dañuy liir dañuy tëb. yow non li ci mujj. non avant li ci mujj li ci njëkk mooy lan. non li ci njëkk mooy lan. mais mooy li ñuy wax loolu mënut a am ci xale bu jigéen bi. mooy lan mënut a am secret médical bi man dama doon ci secret instruction. mais yaa ngi dugg ci li la arrangé li la arrangé bi ngeen di liir ci liir ñun ñëpp liir nañ Sénégal yëpp liir nañ ko. ñëpp kooku du secret de l' instruction ñëpp ñëpp yow liir nga ko ñëpp liir nañ liir nañ ko lu ñuy bind des prélèvements dañu sa jub bi des parlements alors que prélèvement yi soo effectué en vue de test ADN waaw lu ñuy prélevé lu ñuy prélevé lu lu mu tudd lan la waaye xam nga gis nga bu la ñu tax wax. maître ñu ñëw ci. très sérieux hein cette affaire la c' est très sérieux le moment venu à la barre du tribunal fa la ñu discuter prévu. xam nga confrontation de discussion des preuves de loolu ñu jàngul droit ak ñuy manipuler jàng droit ba pare de manipuler sénégalais yi ñoo naan dañ doon ay preuve ay vidéo ay nangam déet juge bi bu la wooyee confrontation danaan yow yaa phrase bii yow mi phrase bi wax nga le contraire yéen ñaar ku ci wax dëgg loolu mooy confronter les déclarations. d'accord mais maître. dañuy confronter waxi seet fu wax ji woroo. léegi nag ki waxul. moo bañ confrontation bi. mètre waxul bi ñu ko ooyee bu njëkk ba waxul bi ñu ko ooyee bu mujj bi. d'accord kon kay amuñu lu ñu confronté lii ak li bu yoo xam ne maa bañ tontu wu ma. d'accord kon kay moom moo bañ ñu xool moom lan la wax lan la tontu. ok maître plusieurs fois yaa ngi wax procès kan moo la wax ni dossier bi mën na dem procès. mais njort laa ci am rek. déedéet. amoo ci njort amoo ci yaa ngi koy wax di ko waxaat déglu ma xanaa 34 ans parce que boo xam ni <laughs> maître macha allah lu ne mën na ci am pourquoi ngay insister ci procès procès fanweeri at ak ñeent waaw nga nekk avocat loolu war nga xam lu bari de xam dossier ni ñuy doxee sama violé secret de l'institution sama ma nekk ci institution bi mais ni ma gisee procès yi nga xam ni am nañu bañ a leeral da ngeen yóbbu tribunal parce que tax nañu wax nag boo bañ a wax ci juge bi xanaa nag xanaa duñ leen dama ñibbi si kër mu jeex rek yow yàpp nga juge bi yàpp nga tribunal yàpp justice ba na nga procureur yow comploteur nga aw ma wax yow yow juge bi aw ma wax yow bu mayuma la nga dama laaj ay questions yoo xam ni sama intimité la alors que viol intimité la Pape Ngagne Pape Ngagne pourquoi yow doo wax ni bu ñu la ooyee ci affaire de viol intimité lañ lay laaj du ñu laaj xaalis boo sàcc. du ñu laaj suuf soo nangu du laaj abus de confiance di détournement affaire intime lañ lay laaj. non man dama la laaj. dama viol kay lu intime la bu ñuy laaj poser question juge bi ne la. li tax da ngay insister ci moom moo ne juge bi. waaw mayuma la nga dama laaj loo xam ni. loolu day laal sama intimité ci procès moo ko wax man man ma benn secret professionnel. moom moo ni secret de l'instruction génnewuma ko moom moo wax man maa ni juge mayuma la nga dama laaj loo xam dafay dugg sama sama intimité waaw kooku xanaa ko tribunal la ko wax ëllëg boo ko waxul juge bi kay di ko wax keneen keneen ko kan la ci sama xam-xam moo ko ci sama njàng juge bu fekkee laaj na la nga ne tontu woo mooy amuloo loo tontu ko amuloo loo tontu liñ la ji ki diree constant bu ñu waxee lii yaa ko def aji saar nee na lii yaa ko def nee na du ma ci tontu ah juge bi ne kon kat kii moom amul argument kon naa jé jóobal yëpp tribunal xam nga lu ci tontu El Hadj El Hadj def na lii El Hadj def na lii Paris El topp nañ ko lii est que loolu mooy procès bi moom El Hadj man je suis pas concerné il veut créer une affaire dans l'affaire du ma ko may du maag moom da ngeen bëgg wax na ci explication bi ne man dama jommi man jaratoon may ñu ndax moom confrontation bi bëggoon moom El parce que El Hadj Diouf la du attaqué. non moom moom non non jàppul ni confrontation. ah dafa wax ni moom. ay ay maanaam dajale pour par pour toroxal benn doomu aadama. loolu lañ ci jublu boo defee loo xam dañ la war a euh, da nga foog ne lu ñu lay laaj toroxal la yaa ko sa bopp yow li mbir mi ne topp mbir mu xaw a sensible muy toroxal nit la xëy na kon yaa toroxal sa bopp xëy na bu beneen procès la beneen façon infraction la dina laaj loolu infraction viol de moom kuñ ko topp ku laaj loolu ndax sëy ngeen ndax laal xale bi ndax def nga ko lii loolu mënuñu la ko bañ a laaj nga ne bu leen ma laaj loolu mais yow wala nga di ma laaj ah ñu laa yéex jël ko suufu jaamu fële nga paru wala da nga détourné bu ñu la dénkoon loolu moo ko fi yóbbu ñu naan kenn indiwul preuve dañ jox non lieu yow non lieu boo tontuwuloo yow nga yaakaar am non lieu moom daal yëpp na Macky Sall pour moom yëpp na Antoine na juge bi yëpp na juge ba dee yàlla yàlla yërëm yëpp na ñëpp bàyyiwul kenn foo na ni ñëpp ko ragal ndax dañ ko doon tëj tëjuñu ko. mu ne léegi non lié la war a am tey dem nañ conférence de presse léegi nii Bassirou Diomaye Faye suur ko léegi nii ci ngoon bureau politique bu Pastef naan dañuy exiger non lieu moo tax ma di leen tontu tontu politique ndax dañuy exiger non lieu man suma parti ni non lieu mënu fee am ndax seen xam-xamu leader da leen wan ni ñi waa bureau politique Pastef la ñuy laaj non lieu si seen seen leader dangul tontu juge bi nangul confrontation pour weddi la ay aji wax parce que weddi wu weddiwul aji saar wax nee lii lii nga ma def nga ne ko du la tontu. mais certificat médical bu nee viol ci. benn certificat médical bu ne viol amul eh ay rek moo mën a tudd viol certificat médical du tudd viol de amul benn médecin bu ñëwee benn viol. loolu dañuy toog seen kaw maay xam nga waxe wuñ ko noonu. benn médecin xam nga fu ñu nee fu ñu nee jaxasoo amu fa mooy viol amu fa. non nee ma suñu wax jaxasoo amul. non certificat médical bi loolu la wax jaxasoo. am ni mu génnee ni lii lii la dañ ko war a yóbbu ñu test ñu seen euh, ADN bi boobu du lu lu fi lu fi test ADN xanaa lii roo lii roo PV bi lii roo certificat médical bi ñoom dañuy tëb dañuy tëb phrase boobu. des prélèvements ont été effectués en vue de test ADN kenn du ko liir te dañuy liir dañ koy liir tëb phrase boobu. Mhm. saa yi manipulation bi bëri na <laughs> waaye olof Njaay nee na ko mos jàkkaar loo xam ne jëw a neex jëw yore sa téléphone walla sa say journaliste am say site internet naan eh xale bi caga am na doom sax daaw déggoo woon loolu am na jëkkër déggoo woon loolu am na doom am na jëkkër caga benn amu ci sit yëpp di yow eh xale bi caga rek lu ne yëg ko ko doomu jàmbur yaa ngi seen ni mu gisee ginnaaw maître non xool ko sooful de mën a tax góor gu mënul téye boppam xalangu ko amul personnalité dëgg boo jëloon moom mais maître mais li ngay wax nii day tax xel yu bari ñaaw ci dama dégg benn chroniqueur ñu koy wax Cheikh Bara Ndiaye mu ne Adji Sarr am na benn audio bu mu def di ci wax lu bari ci ay góor ak ñeneen ak ñeneen. yow yow kooku nga xam ne tekkiwul dara. d'accord nga xam ne. Euh, d'accord xaw ma affaire euh, ja jabar. sëriñu jabaraan yooyu da doon loolu man li mu wax laay wax waxuma li muy liggéey Bara Ndiaye boobu man li mu wax laa wax genre li muy liggéey loolu liggéey genre Bara Ndiaye waaw ak ñu mel ni moom ok genre imaam yooyu no xam non yow yaa ma ni dafa jongo ma yaa yaa am noo noo apprécier ndaw si. waaw moo tax ma wax la ojo bi ma dégg. ni moom wax na ko te tôt ou tard audio boobu dina ko génne. waaw lu mu génne ko yow ko xam waa jooju nga xam ne moom gémmiñ gi euh, fenn ba nëpp Cheikh mooy le fenkateur numéro un.

lépp loo def la arrangé wul moom dem na fenal Sonko sax gis nga élément bi jàpp ko fen na fen ba fen ba ba yàq Sonko naan Sonko kat affaire moom la kat gis boobu gars yi génne ko xamante lu muy wax. d'accord voilà. maître Cheikh Bara fen na ba fenal Sonko li déet. te moom lay défendre. alors ñu ñu. yàlla ko mais non xam nga man da nga maa wax rek bëgg ma apprécier loo. non dama ne gis sëñ fen wax la ci li ba fenal Sonko ba génne ni Sonko bi li ñu ko waxal moom la. gis nga élément boobu

ma ne député ci université di defar étudiants yi man dama am jaar-jaar mais du ma moroom ñi nga xam tekkuñ dara waaye ay charlatan yi bon yi. ok dafa am loo loo démarré léegi ci sa émission muy euh, troisième candidature du président de la république. Mm-hmm. dégg nga boobu ba léegi ñu bari ñi nga xam ni ñoo nekk ci APR. di ko brandir. di ko wax. Mm-hmm. mu mel ni am nañ ci yéene ñoom waa APR am na sax ñoo xam ni def nañ ci presque ay ndaje wax ni euh, tabb nañu Macky Sall mu nekk seen candidat en 2024. am nañ ci droit yow yaa ngi ci biir Benno Bokk Yaakaar. loolu mësa nekk loo xam ni mësuloo ci d' accord. doo ci mës a d' accord. ok xam nga am Ngagne Sénégal yëpp laa bëgg ñu xàmmee ma est ce que mas naa ko dara man génn ci bi ma ne Abdoulaye Wade amul droit def troisième mandat dama ci xeex bien bien après le 23 juin parce après le 23 juin la woon bii it Macky wax ni dafa bëgg def troisième mandat te même bu ko bëggoon danaa ko ci génne en tout cas ci def lu mu mën. ndax lu ko lu rafetal dërëm rek laa bëgg ndax su ma xaree dëpp ñu jàng école ba léegi. ti moom ndeysaan li mu def kenn bës ko fee def. kenn du moom en Afrique. léegi Sénégal dafa am leadership. monde bi fu ñu toog ki day ñëw toog. président présidence Union africaine bi ni mu ko jëlee benn président Afrique ma su ko jëlee noonu. sérieux bi. dem di toog ak ngand yi. ngande bu ne toon naa yow sommet bu ne dem na fa. fi mu ne rehausser na prestige Sénégal comme ni ko Sadio Mané rehausser c'est extrêmement important donc mais nag lu ne day jeex loolu nguuru yàlla dañ ko ñaanal mu terminer deux mandats defi leneen ndax dañ koy soxla feneen. d'accord y a pas que la présidence de la République. maître ku bëgg Macky Sall ku ne da ngay ànd ak moom. ci li ci li nga xam ni. loolu laa gëm mooy day def deux mandats bàyyi bu ko neexee bu ñëwaat parce que bu ñëwaatee. ku fi fekk dalay balay de toogaat. d' accord maître yow nga tey bu ñu demoon ba candidature am dem conseil constitutionnel ñu valider ko nan ngay def. fekk man candidat la. non ñu valider ko laa la wax. ñu valider candidature man non gëwuma loolu. non bu ñu sukkandikoo man doo nekk ci ay ay ay spéculation non bu ñu sukkandikoo ci mandat bi juróomi ña juróomi at la. dégg ko man mi la mandat am jeex na 24. ku ba ngay posé boobu question. ok man dama da nga dégg man am na droit ci beneen mandat. non déggu man man maa la laaj. dama ne maa la ni bu ñu demee ba conseil constitutionnel validé. candidature am waaw loolu loolu si ñëwagul est que mu di représenté ba loolu di ñëw bàyyi leen affaire troisième mandat bi man sax dama ne du ma ci waxate parce que ñëpp xam nañ sama position mais après am nañu ne ñoom Macky Sall lañu bëggaat toujours yow mën nga tere ay nit ñi suñu leader lañ bëgg ba àdduna bi tukki ndax moo ñu doy gisuñu kenn ku ko mën am nañ ci droit mais ma ne dama yor sama parti am sama xam-xam jàng droit ni président amul droit troisième mandat. assumer ko nag parce que man intellectuel laa te dama jàng d'accord ànd ak moom ki ngor ma sopp ko mu sopp ma ñu ay xarit yu wóor xarit boo ñëwee wax xaritam dëgg du xarit xarit sa gémmiñ gi xasal na sa doomu koy wax ku lu sangul sa taar la bëgg donc man dama xarit boo xam ne sama xarit du ma ko wax dara Macky ma connaît tellement bien même tellement bien man ma bëgg ko ma ñu nekk ay vrai xarit xam naa ne sax neexul ñu bëri mais loolu yàlla moo ko def mais du tere ma ko dëgg nag Pape Ngagne nañ bàyyi naan Macky Sall est-ce que am na troisième man loolu waxam jotagul ki mu ngi liggéey ñu ngi ci tali yi ñu ngi ci terre bi ñu ngi bertee la xawma ñu ngi ci defar cité religieuse yi ñu ngi ci université Amadou Mahtar Mbow barki Dembo Ndiaye mhm. mais Sénégal macha allah macha allah ñu am ñu ay ay ay terroristes yu ñëw ci réew mi yéen nañu ay Mali comme li fi am ak Guinée bëgg instrumentaliser jeunesse bi xale yi ba ba téye leen këf réew mi indi fi dictature Hitler mais sa waay ñaari point laa bëgg soulever foofu benn bi nee na fii quelques mois may nekk président bi mu menacé juge bi amul ma ko wax bu yéen ñëpp danaa seen problème wax na wala wax ko bi mu génnee première audition ba day passé bii menacé dans quelques mois je serai président loolu wax. 16 waaw. 16 d' abord moom moo yàlla. léegi moo yàlla moo xam mais président kenn du ko nekkee noonu bi ci des. ah kon moom bu nekkee président politicien bu ne moom nga war a wax ah. déedéet politicien buy buy dem ci rendez-vous électoral dans treize mois may nekk président waxuloo de li ci jublu wax jooju lu ko indi. ok mooy yéen ñoom procureur yëpp daa ko digal ñi. mu ne kon moom bu jëlee pouvoir bi ah, li mu sosal ñoom Antoine Diome ak ñoom Macky Sall day instrumentaliser donc justice bi pour fayee ko ci Pape Ngagne Ndiaye procureur fayee ko ci Lamine Ndiaye juge d'instruction ci tel ministre de l'intérieur un loolu moo ne moom du du démocrate mais bi ci des mooy séparation des pouvoirs bi ci Pape Ngagne maître pouvoir exécutif. man ci mandat bi laay demaat judiciaire moom gëmul gëmul. la séparation des pouvoirs d'accord. troisième mandat bi def nee naa ko pare naa la amu ci droit Macky Sall dama ne bàyyi leen di wax affaire troisième mandat bi d'accord loolu leer na parce que moom waxu ci ok on ne peut pas être plus royaliste leen Macky mu ngi liggéey jàppaleen ko mu liggéey am ndam ci li muy def maître ci beneen Sénégal jëm kanam ci wàll bu ma bëgg ñu ñëw ci mooy li xew assemblée nationale ah. nekkoon nga député vraiment ni nga koy waxee bagarreur lu lay hmm. gis nañ ko assemblée nationale nga taxaw ko hmm. ndax jàpp nga ni acte yi muy Massata Samb muy Mamadou Niang teg bokk pur bokk ci Yewwi Askan Wi euh, lu waroon mën a ñàkk biir assemblée nationale la parce que ñu bari ñaawlu nañ ko ba CEDEAO ñu ngi wax sax euh, que ni euh, vraiment loolu dañ ko war a leeral acte yooyu ndax jàpp nga ni ci biir parlement war na fa mën a ñàkk wala lan moo ci am ci loolu ban gis-gis nga ci am. tu vois mu ne ce qui se ressemble semble du ñooñu ñu ngi bokk ci Yewwi bu Ousmane Sonko Pape Gueye kenn moo taxaw ñëpp di ko déglu mu ne. mbiri si la dama ko dóor ba subi ñuy yéreem biir assemblée ko wax loolu <laughs> gaa yéen ngaa fàtte Ousmane Sonko la. ah si la itam wax la mu ko def te député la moom itam. mais dama ne en tout cas ki doon ah, bàkku. non non Mbéri itam mu daanu. mais weddiwuma loolu. mais est ce ko taxaw ku ñu wax Ousmane Sonko boo ko yeew yaa wi yeew ni dóor na Mbéri si la ba suma yéreem am na wala am moom kon problème mu dóoree lay lay jaay. kon problème mu dóore moom du bees ci yeewi ak ci Pastef problème mu taal kër ku mën a taal kër kay mën nga mën nga mën nga agressé jigéen ndax suma jabar mu nekkoon keroog jour boobu ci kër gi boobu liir nañ ci Facebook ni dañuy attaqué à 15 heures ñoo gendarmerie maris mu ñëw taxaw fa ba 18 heures mu dem dafa dem rek boo yegsi boobu ñu ngi yéerndu di xool di yéerndu ay bandi mais maître yow lu ñu la laaj il faut nga dugal ci Ousmane Sonko. mais lépp moom la cest à Sénégal moom politicien bu bees boo xam ne musiba daan roy la moo ne mérite la mais moom moo taxoon ne Macky Sall am na droit troisième mandat boobu ba tegal ko am am nga boobu élément boobu mu ne Macky Sall am na droit troisième mandat moom ak Barthélémy Dias am ngeen seen élément boobu am nga yore fii. Ah, bien léegi pourquoi ñoom ko sax. pourquoi moom bu def campagne électorale ci législative yi. Mhm. naan Macky amul droit troisième mandat loolu campagne non au troisième mandat moom moom Barthélémy Dias de tout le temps loolu ñu campagner même à l' assemblée nationale gis naa ba Farba Ngom tegal ko keroog Barthélémy Dias gàcce di ko bëgg a rey muy jaay ngand de ngan a nganalu incapable de dire la vérité. mais dégg nga li Barthélémy Dias tegal Ismaïla Madior Fall. mooy ban. ah non déggoo ko boobu déggoo ko. mooy nul nul bi. waaw moom moo tegal lañ ko ba sax moom it. xam nga li bon. Mm-hmm. man d'accord naa ñu weer Ismaïla Madior bu dee def lu war a def. Mm-hmm. kon noonu la wala weeree Barthélémy Dias ak Sonko ci seen wax waxet mais presse bi damay gis yéen da ngeen leen di faral Ismaïla Madior Ismaïla Madior di nga yàq dara alors que Sonko sonk la ñu waroon di wax Sonko fi taxaw ni bu ngeen fareetee Macky Sall 2019 am na droit troisième mandat non seulement Barthélémy Dias dëggal ko nee na mais Wade amoon na ci droit waaye xam nga ñun politiciens dañuy mbalak yaa dégg bi koy wax. waaw Madeleine Dias est-ce que war nañ ko sax fal quartier chef de quartier ku taxaw ne man dama doon fen ba ma ay moor xam nga Mamadou Diop est décédé à la place de l'obélisque yaa ngi fàttali kilo kilo kàbbaroon Mamadou Diop ba Mbour temps yi temps le commissaire euh, Aronesi yaa ngi rappelé yooyu amoon na fi. bien yooyu lu ñu wax def troisième mandat Bassirou Dia taxaw ne Wade amoon na ci droit pour disee quoi ñoo doon mbalak rek mais c'est grave ak. ak ak ak ak Sonko est-ce que war nañu dénk village ba dina jox ay maires yi. laaj ko askan wi leen ko jëg. non moo tax may mayee askan bi. nit ñi askan wi leen ko dénk. mu ci Dakar mu ci Ziguinchor nax parce que askan bi xamuñu lu bëri. Bachelard disait l'opinion pense mal et ne pense pas. Mhm. beneen borom xam-xam ni il faut pas être à l'intérieur des masses il faut être à un pas mais à un pas seulement bu leen sori. il faut mu am ku leen di xëcc ndax dañuy mel ni ay mouton Sonko loolu la xam nag ci lay surfe xam na ne ñu bëri jàng école Sénégal ñu bëri xamuñu phénomène sociaux yi mu tooyee wax ju neexam jooju lemet lemet ko naan seen projet bi di nax nit ñi tellement malhonnête tellement manipulateur man maay seetaan comme Allemagne yi bàyyi Hitler bi mu raamee ba jël Allemagne magu waxoon naa ko moo gën magu xamoon naa ko jëlagoo pouvoir bi di menacer procureur ne ko bu ma jëlee pouvoir bi dans treize mois di nga xam en boobaa danaan beneen procureur tëj ko jox ordre ay juge où la séparation des pouvoirs où la démocratie où la république ce serait la dictature kon man sama devoir leader du PTP président du PTP le député du peuple l'homme du juin mooy taxaw ci kanamu Sénégal yi jiite xeex bi contre Ousmane Sonko bi nga xam ni phénomène bu dangereux la bëgg ñu yóbbu foo xam ne ëllëg euh, bu ñàkkee fayda ba mu ba jël fi réew mi musiba lay lay nekk ci réew mi. maître kon nañ ko baaree la route. jërëjëf merci beaucoup wax ji moom lu muy gën di yàgg ci Ousmane Sonko nga koy gën di tiire kenn amu ci pexe loolu. ah euh, mooy alekala ji. ah d'accord merci beaucoup ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax. man amoon naa mbégte recevoir la ma bàyyi la bu fekkee am nga message booy passé nga nga tàggoo ko. waaw maa ngi nuyu Pape euh, Ngagne Ndiaye suma rakk de valeur. Mm-hmm. di nuyu sa baay bu baax bi tonton Boukounta Ndiaye tout à fait di nuyu sa mm-hmm. famille ñëpp. dëgg la jërëjëf. isaan sa nijaay ji di la ko toujours. jërëjëf merci beaucoup l'un des meilleurs artistes de ce pays. effectivement merci Ndiaga Mbaye nga xam ni c'est un philosophe dañu jàngal. tout à fait jërëjëf. ndax keroog ba fi jógee defe naa kenn njëkku ba fa ca morgue ba dëgg la dama lay ñaanal te loolu aussi xam naa ni def nga ko pour moom mais def nga ko aussi pour man waaw ah, sama rakk nga maa ngi koy apprécier bu baax parce que dañu bu yàgg effectivement loolu dëgg nga dem nga di ma indil même ay sukkaru weeri koor xam ne sa mag laa loolu dëgg la loolu il faut que publiquement parce que nit ku baax <laughs> da ngay wax lu baax li muy def dëgg la jox nga ma cër bu rëy dëgg la du tere nag may critiquer di ma poser question sans loolu mooy professionnalisme donc je reconnais ton professionnalisme. da ngay teg feesu relation. fii ni ñu nekkee ay xarit ni ma nekkee sa mag. ni nga xamee sama famille ma xam sa famille. di dem Pikine. tout à fait. Hmm? ndeysaan ak yëpp. donc euh, dama kontaan ci yow. di am ñu gën a góorgóorlu. merci jërëjëf di gërëm TFM di nuyu suma xarit sama sama seex Youssou Ndour ñoo bokk année bi ñu juddoo. Mhm. man moom Idrissa Seck ñoo ñetti seex yi. ñoo judd 59. Mhm. di wax Sénégalais yi nii. man Sénégal rek moo ma ñor toute ma vie durant xeexkat laa école université avocat assemblée national moo tax ñu doon mooy le député du peuple fàtte ngeen ni Famara Senghor na ma assemblée nationale fekk ma toog groupe parlementaire réunion Iba Der Thiam ñëpp toog yàlla na ko yàlla yërëm Doudou Wade ñëpp toog mu ñëw agressé ma ndax booba après 23 juin la ñëpp mere ma lu ne dañ naa ko mais Sénégal moo ko jaral paat te Sénégal gi nuñ ko tabax ci naafeq ak ci ragal te am na group boo xam dafa jóg pour terroriser Sénégal yi napp leen këf réew mi pétrole bi lay teg seen bët ak gaz bi ndax ñenn ñi sàcc nañ suuf si ba mu jeex jaay suuf ba mu jeex suuf amatul pétrole bi lañ comploté pour jëli pétrole bi résilier contrat pétrole bi ñoo wax damay dégg jox ko ñeneen ñu fay leen ay milliards ñu def seen poche kon Sénégal yi yeewu sama doom yi xale yi sama jarbaat yi yeewu leen diaspora bi lépp lu mu leen wax ne da leen bu ngeen ñëw jox leen liggéey kàcc kese damay changer réew mi dañu leen nax ku leen nax gouvernement bi mu ngi def li mu mën Macky Sall gàcce ngaalaama ñu ngi félicité gouvernement di félicité député yi pas député yi nga xam ne dañoo bëgg taal Sénégal député yi taxaw ci euh, ci ci kaw taabal yi yi sàcc ay daaw ak ñoom ay député yoo xam ni véritablement. gàcceel nañ Sénégal yu jox yu jógee Yewwi Askan Wi mooy genre coalition boo xam ne dañ ne woon législative lay yem duñu yegg présidentielle la présidentielle koy day demal boppam waaye ba léegi ñu ngi ànd di jéem a naxante ah euh, Ousmane Sonko ga daw gaaw bi biñ ne dañuy dañuy amnistier Khalifa Sall rek na day def tournée waree ne du ma nekk Khalifa moom it jiitu ma donc donc euh, ñoom gëmante wuñ sax dañuy naxante xam nga euh, jeu de double quoi mais nañ demale sénégal yi Sénégal ci jàmm Sénégal ci xéewal di ñaanal suñu chef religieux yi ah, ñu yàgg fi loolu te wér population bi yàgg fi loolu te wér président Macky Sall yàlla dimbale ko ci liggéey bi mu bi mu mu terminé ko ndax intere sénégalais yi rek ku demoon bii di ñëw ñu ñu ñu gañe ko ku def rek bii ñu gañe waat ko te nag ñu xoolaat bu baax Aliou Cissé xoolaat boppam waaw ñu xoolaat affaire yi mbir yi jërëjëf maître jërëjëf jërëjëf maître merci beaucoup jërëjëf maître El Hadj Diouf euh, yaakaar naa témoignage yi nga wax man moom laa mën a wax si yow xëy na ñu bari nii lañ la xamee ci ci ci yëngatu waaye nit ku fonk njaboot la nit ku fonk ak euh, xarit la aussi loolu mën naa ko seede ndax dund naa ko ak yow ay yoon yoon euh, wax fa dëgg yàlla ci sumay début à oxygène ak Walfadjri taxawaay bu am solo boo xam ni taxaw nga ko ci suma wet dama koy rafetlu bu baax parfois bu mu amee jafe-jafe sax ci suma nit wala kenn ci wàllu yoon suma xel ci yow lay doon euh, dem ci ay conseils yoo xam ne da koy def xale bu baax nga macha donc ñi ngi lay remercier bu baax maître Diouf euh, kon mbokk yi mu nekkoon seen émission Faram Facce ak télévision Futur Média tey nag ñu doon dalal maître El Hadj Diouf jiite parti bi di PTP waaye itam nekk avocat à la cour Euh, ñu doon ko recevoir mbokk yi tey ci seen émission Faram may gërëm Chérif Dia nga xam ni moom itam daanaka moom jàppale nañu ci émission bi je pense que moom nga jotanteel sax. Chérif moom suma rakk la maa ngi koy. waaw ah, Chérif baax ma gërëm nuyu na ma ko nuyu na ma jaay yëpp waa waa TFM yëpp. Euh, di di gërëm itam Vieux Diouf di leen jox rendez-vous mbokk yi incha allah ci beneen numéro Faram Facce bu ci àllandee jërë ngeen jëf.